bismillahi rahmaani rahim sëriñ tuubaa xaadallahu wallahu maxtaaloo nee na ma xujja maram radiallahu taala anhu wàlliyu yam jamonoon teel tebe la leen jiitoo woon ci yàlla subhaanahu wa sëriñ bi mooy wéy di nettali ba tey ni cheikh omar fóotiyu taal radiallahu taala anhu bi mu jógee penku màkka xay na indaaleel naa la loo xam ni dama bëgg nga denc ko di ko jariñoo mu ni ko kon soo yaboo nga bu ko ndax lu ma mënta bokk ak saa mbokk jullit du ma ko téye mu ni ko yow kan ma xujja yaa ma gën waaye man nga koo def nu la soob mu def ko ca teen ba siiw na daa mel ni tabe melo la woo xam ni boole na melo yu bari joxe itam boole na jaamu yàlla yépp li ko waral saa soo joxe kuy jaamu yàlla subhaanahu wa taala lu muy jariñoo mel nga ni ku def la mu def lépp naka noonu boo joxee kuy moy yàlla lu muy jariñoo li feeg mu koy jariñoo ngay gën a sori mooy yàlla subhanahu wa taala bu fekkee ki ngay jox nekkul ku sun borom togg jëf mel ni am xar wala nag wala fas wala muus diirub yaa ngi koy jariñ sàbbaal yi muy sàbbaal yàlla yaa koy moom yow mi ñu togg jëf su ko defee ci lii ma wax ci ngay mën a nangoo hadis bu wér boobee nekk ci sahihul bukhari radiallahu taala anu te mooy jigéen ga tàbbe àjjana ci benn xaj bu mu mayoon ndox te mësta def lu baax wala alam ñu ñëw ci njàngalem fanweer bi ak ñaar am na doomam joo xam ni ba mu faatoo daa fekk sëriñ bi xaadalaw law maxtaar loxo moom ma xujja maram radiallahu taala anu ci géej jamono jooja itam metti lool ba amuñu luñu ko mën a rayal ak njamale joox njamale xeetu rab la te tol ni gëleem daa di joox joox mooy ak ci penc ma ñu daa di koy jàpp ray ko ginnaaw bi sëriñ bi jugee ci géej gi dem dempa di leen seeti ni leen nu ngeen def ak seen gan nga ñu xam ni njamala googee lay wax sëriñ bi ni leen mënoon naa koo def aw nag waaye dama xam seenu manu kon du ngeen ko laal moo tax ma def ko ak njamala siiw na nettali bi dañuy leeral ànd gi sëriñ bi ànd ak murit yépp waxtu wu nekk mu koy gën a leeral ci biiri waxam wala alam sëriñ tuuba xaada la walaw maxtaara lahoo ca jamonoy pestu ba lu amoon foofa ca njareem la ñu bari ci taalube sëriñ bi ca lañu faatu ba pestu ba amee daa dajale woon taalube yi ni leen dañu fee ñëw di ma wax mbirum ñàkk yi ñàkk yi tubaa bi ñoo ko doon def ngir dàq jàngoro jooju biñ ko ko waxee ma ni njariñ newu ci ba ma di ko digle waaye lor newu ci ba ma di ko tere te man ku ma digal boo defee jariñu ku ma tere boo bàyyee mu musal la waaye mucc gi ngeen di wut nekkul ci ñàkk yi ba ñu toogee ab diir tubaa bi dikk ni ko yaa ngi tere ñàkk yi waaye bis bu set lu ma téeméer ñàkku sëriñ bi xaadalaw law maxtaar loo woowaat leen ni leen ngeen fee ñëwoon di ma wax mbirum ñàkk yi ma ni leen njariñ nekku ci ba ma di ko digle waaye lor newu ci ba ma di ko tere te man ku ma digal boo defee jariñu ku ma tere boo bàyyee mu musal la waaye mucc gi ngeen di wut nekkul ci ñàkk yi bu ngeen ko bàyyiwoon nag ñu xëcc li dox seen digganteeg li ngeen ragal te man kuy dem ak kuy jekki dem mooy faatu ak kuy jekki muy kuy dund yépp maa ngi ko teqale woon ca weeru safar siiw na bismillaahi barkeb borom tuuba lii dañuy leeral laa tadxuloo min baabin waaxid wadxuloo min abwaabin mutafarrixa ak maa kaana yuxni min allaahi min cheyin li tax sëriñ bi wax lor nekku ci moo di day ak sabablu li tax mu wax ni njariñ nekku ci moo di musalul kenn li tax mu wax ni bu ngeen ko bàyyiwul ba wax ji jeex dañuy xamal moytu gu ñu war a moytu tubaab yi te ñooy yéefar yi ndax bari na yu ñu tuddee saafara te day wàññi lool sunu wérug diine dinu tawatal ci sunu mujj tawat joo xam ni bu la dalee faw nga dellu fa nga jóge woon mu def ci yow la ko neex mel na ni it sunu borom subhanahu wa ta'ala amna xarala gu yeme ci minde fi loolu modi di daa ku nek suuf sa nga nek garab ya fay sax day deppok sa deret bude bu fi mel na ni bisab buy dakar senjang mbarbeef lay pen, ben guyab mango carotte gerte lem ay garab lañu yu bax lol te deppok sunu deret ginnaaw ndawal ak soow am na itam ñett yoo xam ni amul ci sunu réew mi waaye sëriñ bi am na lu ko ci yàlla may ba tax ñu war koo fonk te mooy kafe ak attaaya ak gura bu nu seetloo itam dañuy gis ni ñiy jëfandikoo sunu garab yi ñooy ëpp ak wér ñiy jëfandikoo garab yeneen ba tey bu ñu seetloo danañu gis ni ñi dëkkul bu ñuy jëfandikoo sunu garab yi day diis ci ñoom lool am na sax ñu muy tawatal daa mel ni ni sunu yaram yi wuutee ak suuf yi ni la garab yi ko war di wuutee wala alam ñu ñëw ci njàngaleem fanweer bi ak ñeent am na gàmm goo xam ni ba ñu gàmmoo ba nopp sëriñ tuba xaadaloo law maxtaar loxoo bi mu génnee daa wax ni lu waay di joxe na ko jox musa alima radiallahu taala anhu daa di teju siiw na sëriñ tuba xaadaloo law maxtaar loxo mas naa wax sëriñ mor xalima radiallahu taala xanu war nga sant muusa xalima radiallahu taala xanu waaye musa yow mii war nga sant mor ni musa li tax nga wara a mor moor dala awale ci yoonu jub moor li tax nga wara a sant muusa da caa nangoo aw siiw ñu ci njàngaleem fanweer ak juróom benn sëriñ Moussa Halima radiallahu taala anhu bi ñu ko indee ci sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar loo daa wax ni nañu ko dalal sëriñ Moor radiallahu taala anhu ni ko wattu na loolu rëy lool ci sëriñ bi ba taxoon mu amub cër lool ci moom siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar loo bu weeru koon daa bu weeru koor daan bëgg a jeex danaa ndaxam weer waa ngi jeex ñu ni ko waawaaw mu ni doy na waar moos daal di tëju sëriñ tuba xaada lawo law maxtaar loxo nee na ku ma jàpp nga jàpp ma boo bàyyee jàpp naa boo jàppee jàpp naa daa mel ni nekk murit ba mu yàgg nga doon leneen lay wax li waral moo moom wirdu yépp ni mu ko leerale ci waxam alam serigne touba khadalahu law makhtar lo masnatari lo serigne mor halima radiyallahu ta'ala hanu saaro hamma yatasaaluna mu tari ko ba mu jeex serigne bi ni ko digeunte bobu lu nek ci njaqare doxna sa digeunte ak mom ak ko japp ci yeen ngir man siwna ñu ñew ci jangale ñeen ko bi serigne touba khadalahu law makhtar lo masna tombu tombu yu bari ci wet gii tomb benn tomb ci wet ga ca des tomb ay tomb yu ko wër ni mboole fi yépp ñi ngi nii te mooy tomb yu bari fi fii man maa fi nekk te mooy benn tomb bi yoru dunya wal axirati yiwi adduna ak alaxira ñooy tomb yi ma wër képp koo xam ni saa boroom namm na ci yow nga jariñu dalay xirtal nga bàyyi koo fee fekk si ma fii yàlla nañ ko fekk si siiw na sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaar lahoo nee na sama xasida yi suuf suñu leen di jàng ku nekk ca kaw suuf sa ñoo lay ramu bu ñu ko dee jàngit képp kuy wax malaayika yi wàcc di ko diglu si dañu lay moolu rek wér na moolu mooy ñaanal la aw ay wala lu baaxul wala aw alam ca jamonoy pestu ba daa amoon ci taalu yi ku gént tawat dal ko ci baaraamu tànkam ba mu xëyee mu dal ko mu yónnee ci sëriñ tuba xaadaloo law maxtaaloo ba mujj mu wax ndaw la ni neel sëriñ bi moom laa bëgg a gis sëriñ tuba xaadaloo law maxtaaloo ni ko boo demee nee ko mu jaare ne ba mu dikkee ba tolloog fi nga xam ni moo dox seen diggante sëriñ tuba xaadaloo law maxtaaloo ni ko moo diw tudd aw turam sa wopp ji loo ci diku mu ne ko faatu la ci ragal sëriñ bi ne ko yëkkatil sab tànk mu yëkkati ko sëriñ bi tefli ci mu wér fasansa siiw na lii du ñuy gën a leeral loolee mu doon wax ni lii dugg ci nit ci tànk yi ak loxo yi lay jaare wallahu aalam sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lawo nee na alxuraan wax yàlla subhaanahu wa taala moo gën a màgg lépp waaye sama xaside yi moo féeta kaw ci yéen alxuraan nit bu amee doom nu mu koy def ñu ni ko boot mu ne alxuraan day boot sama xasida yi xam ngeen ni doom du yëgub coona de ñu ni ko déedéet ndax ma nga ca gannaawu ndeyam sëriñ tuuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo ni ñooy doomi alxuraan siiw na bu ñu seetee li yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa salama wax ni ñetti lixlaas yi akub kamil ñoo tolloo li ko waral sóoratul ixlaas yi lépp wéetal yàlla la subhaanahu wa taala ak màggal ko naka noonu xasiday sëriñ bi lépp wéetal yàlla la ak màggal ko subhaanahu wa taala walaw alam amna na ku ma ci sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaar laho ni ko Madu Mbay radiallahu taala xanu faatu legi léegi sëriñ bi ko Madu Mbay saa moom ñetti yoon mu ni ko waaw sëriñ bi ni Madu Mbay leble na fi lu baax tay ñu fay ko lu baax ñett yoon su mi turki dara ni nañu ko ko solal ni ko dikkal mu dikk mu jàng tibbu ca def ca ni nañu ko def ca bàmmeel ba ki nettali armeel ba la wax waaye ci bàmmeel la ko daan deflu moo tax ma bind ko mbadu mbay leble na fi lu baax tay ñu fay ko lu baax waaye dem nañu ba tàkkusaan kenn wu ko laal serigne touba xaada la wala maxtaa la woo ñu ni ko ba demagul serigne bi ni lu tax ñu ni ko dañu ko ragal serigne bi ni nañu ma wutal ku ko yobbu ma fay ko ginnaw lii serigne bi teju na fukki fan ak juroom ngir moom werna serigne touba tubaa xaada lahoo neena da set aduna na di matum sawara mani sa borom sa jami' yi. ñepp deng sawara ni te nga ma dimbulé ma dem xéti li leen bo leen la du la wàññi dara du la jariñ dara bo leen dugalee aljana du la wàññi dara du la jariñ dara te nga ma bàyyi ma dem xéti li mu ma demal siwna li dañu li léral ni sëriñ bi mag la lool wala alam amna bis ci njaareem ab yor yor sëriñ tuuba xaadalewoo la maxtaaloo génn jëm ci penku di dem ba jéggi yoonu saxaar gi fekk ci ñetti naar yuy lakk ndawal mu nuyoog ñoom ni leen fu ngeen dëkk ñu ni ko dañu fee jaar rek sëriñ bi ni leen xam ngeen kër sëriñ tuuba xaadalewoo la maxtaaloo ñu ni ko waaw sëriñ bi ni leen ndax man ngeen ma ca yobbu am ku ni ko am ku ni ko ma àggale saa baraare bi yobbu la am ku ni ko ma àggale sa kaas bi yóbbu la am ku ni ko nañu dem ma yóbbu la sëriñ tuuba xaada laxoo law maxtaar laxoo nee na ki ko wax ma àggale sa barada bi yóbbu la jéggal nañu ko ki ko wax ma àggale sa kaas bi yóbbu la jéggal nañu ko jéggal ndayam ak bayam. ki ko andi jegal nañu ko ak askanu bayam ak askanu ndayam. wér na kemtulaayul ki ngay jëmale jëf ji ni mu tollu fa yàlla subhanahu wa taala ni la fay gi di toll insha Allah taala wala alam soxna aminta mbay Allah taala hanha. serin tuba xaadaloo la maxtaloo mas nako wax sa wa kër maam ñoo ci xam muy lim ba ci mam halilo serin bi niko moy sa borom kër de serin abdou karim ture radiallahu taala hanu dik niko ko yaay may sama soxna si halilo soxna si doomi jaayam la woon moom sëriñ abdou karim sëriñ bi ni ko néewuma amoo ci wàll waaye loolu la ma saa borom digal siiw na soxna si sëriñ abdou karim moo ko mujj yor ginnaaw sëriñ aliou radiallahu anhum mas naa wax moom sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nu ngeen di ñaane ñu wax ko lañu xam mu ni déedéet bu ngeen di ñaan da ngeen naan yàlla yàlla nanga ñu sàmm ngir ngi sàmm xontu ñu ngir ngi xont la taxoon nga bind ñu yàl nangu ñu ci xiir bu nu faatoo yàl nanga ñu xarool àjjana yëgana kawe siiw na ñu ñëw ci njàngaleem ñeen kubi ak juróom ñeent am na ku mosa nuyu sëriñ tuuba xaada lahum law xaada lahu law maxtaar laho suba teel bëgg koo jox loxo teyurul dara mu téye ab loxoom joxu ko ko ba yoor yooru ni dama leena bëgg a yee ci àdduna ndax joxe loxo kese suba teel day xañe wërsëg te kuy dund ku nekk soxla woon wërsëg na